asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet bi siiw ci fi nga xam ne mooy Leewtoo TV wala seen acti mu ngi nuyu ñëpp di leen seet di ñaanal jàmm tey nag ñu ngi daje fi nga xam ne mooy Biré Doré bu jàmmalaay li ñu fi dajale nag làmb la ki ko woote nag di promoteur mën nañ ne bu bees ci làmb waaye nekkul ku bees ci làmb ñu ko ñu koy wax mbay Mbaye Yékini mu tëgg espoir yoo xam ne nii yaakaar naa Ronaldinho bu tëngee xam ngeen ko Clémenceau xam ngeen ko Kaw Gourdin ak kan lay bëreel moom sax 2 Ziga voilà loolu la mbay kii Yékini fas yéene indi ubbee ko saison ñu nuyu ñëpp di nuyu nag suñu per parce que moom bu ñu ko fekkee jotaay dañ ko jiital lépp lu ñuy def muy suñu père Modou Bay di ko nuyu di ko ziar maam ñaaw tamit manager di suñu xarit di suñu waay mu koy nuyu ko ziar bu rafet tamit mu ngi toog waaw ma koy nuyu di nuyu abu ak waa seen yëpp mais di nuyu caméraman yàgg ah, maar ak kii kon gis jotaay baa ngi nii macha allah am na solo gaa yaa ngi nii ah léegi nag man balaa may dem sax gars yi damay uti ci grand Modou Lo ndax nag jotaay bu mu mën a doon bu ne mag mu mel nii kii su fa toogee balaa ñuy balaa ñuy sori dañ koy jox mu ubbi parce que yaakaar naa ñun ñi fi toog ñëpp li mu xam ci làmb wala di fekkee fekkee wuñ ko dañ ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. ñu ngi lay nuyu la si grand wala sax tonton Modou Lo ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay à Babacar ñu lay fay di fay say cameraman di leen nuyu di nuyu promoteur ah, di nuyu équipe bi yëpp ñu àndal di mu ñëw ma perkaay ñu liggéey a nga ñàkk àndal moom mu ñëw si làmb nag dëggoon na fii si Afrique bi passé defoon nañu wax waxoon am solo fee si àddina si moom réussir tey mu ne day dem arène wax ko ñaanal fu mu jëm yàlla ko yàlla defal jàmm fu mu jëm ci arène bi yàlla leeral yoonam ak sëriñ ba nga tëra gis ñu ko ñaanal bu baax a baax xale bu baax la bu am jom la bu bu jox cër bu jox mag cër te ñun ay boobu làmb la ñu yàgg ci làmb yow nag su ma la ko waxee loolu ndax yow su ma fulaay nga waaw loolu am na yaa suñu maître yaa suñu ñëpp ci làmb su ma doom nga te xam nañ fi nga jógee ba ñëw fii tey macha allah yàlla nga gën a avancé rek Cheikh rek Serigne Touba mais Yékini nag xale bu am jom la am jeune amateur lañ ko jàppale ñu ngi ñëw si lamb ji ak buzz dañ ko bàyyi xel te bu kenn fakastal maa ngi koy ñaan si ci barke Rasulullah euh, ñu ngi jëm si lamb te lamb dafay point bu sensible boo kenn fakastal loolu baax la te mu jàppale jeunesse bi mu boole espoir nag yoo xam bu bu Ronaldo bi ñëw toogee nii kenn du wax ay champion bu deux yi gaa nii tey kenn du ay champion bu kaw Gourdin dafa tëgg ni tey kon nga xam ne espoir yu baax la lu fi indi tey kon lamb ñu ngi ñëw ak jël ak espoir yi ñu bàyyi ñu xel bu baax di ko ñaanal bon réussite di ko ñaanal saison 2019 2020 saison bu am jàmm ak salaam bi muy ñëpp rek bi muy maam ñaaw maam bu am bu am bu am jom bu yarute te jàng te am xel te joxe cër ñu mm. ko ñaanal tamit bi muy nekk ñëpp des kanam daal kontaan tey promoteur bu bees mën nañu si làmb li nga xam Fra Mbaye yi donte yàgg na si làmb indi ay xale yoo xam ne nii Ronaldinho Clémenceau Kaw Gourdin deux cigares yow yaakaar naa yor yor ki nga xam ne nii moom mooy Ronaldinho. waaw maa yor Ronaldinho. moom émission bi dañuy ziar ki nga xamante ne moom borom bés bi ci mbay mi di ziar aussi tamit kilifa bi nga xamante ne moom la ànd ak liggéey donc ay amoon na sax sës bi sax moo garaaw bi fi nekkoon suñuy jaay bi ménager yi wala ñu mën a di profité ci occasion bi aussi tamit parce que loolu nag kii moo ko waroon coordonné as malheureusement am na dama bokkam bu wàññeeku moo tax nekk sax mais sànq rek mu ngi woon waxtaan yaa waroon ñu ñu nekk si yoon mais boo gisee doo faa woon dañuy ñaan yàlla jàmm kenn ko bi tëjee yàlla bu métti na trop mais mën nañ jàpp ne facteur de développement bu duggee ku gis yi ñu jàpp ne ku jub pour jàppale xale tëgg laa mooy am solo ndax ñeenti mbër yu toog yëpp tëgg nañu ko sax xam naa rek ku ci nekk seetaan naa sa combat instant xam naa dina seetaan naa ko li nga xamante ne mooy deux jours seetaan naa ko te la mos a ñu combat bu mujj seetaan naa ko moom lañ ko xam ko moom itam di ay jàmbaar faxante yoo xamante ne kenn dootu leen présenté ay xale rek ay xale yoo xamante ne xale yu gëm seen bopp rek bu gën donc yaakaar si làmb bëgg làmb donc bu amee seen mag seen gën a amee seen ñoom ñoo bokk seen jug pour jàppale la donc wax na yàlla boo xamante ne dañuy ñaan yàlla mu nekk en partenariat gagnant gagnant donc ñoom dañuy ñaan jàmm wér yàlla ñu ñëw si bis pour jëflante euh, que le meilleur gagne làmb sport am ak mu boole loolu xaj donc loolu lañ leen ñaan ñu am discipline préparer li ñu war a préparer ànd ak seen ay mbokk ñëw def fulla def fayda yàlla dogal la ñu doon parce que am si loo xamante ne bu war a am kenn ci si la jaajëfal yéen préfet aussi tamit parce que am na loolu am solo yéen a koy suñu si Babacar bu yoof maa ngi lay ziar sëñ Babacar su ma la laajoon sa teewaay fii lu ko waral sa diggante ak Mbaye la wala lan moo waral teewaay bi fii tey non sama diggante mbay Mbaye lu yàgg la mu nekk benn euh, nit boo xamante ni wàcce na boppam te day nit koo xamante ni tey bu mooy wax si moom du jeex mais lu gàtt rek laa la si wax mu nekk koo xamante ni dafa gëm boppam mu tuddee boppam Mbaye Yékini ku nekk xam na Yékini soo xoolee jikko yi nekk si moom yëpp si dafa gëm boppam gëm Yékini mu Yékini tamit jaral ko lu ne Yékini jaral na ko mu joxe bakkanam te Yékini képp ku ko xam du loo wax loo xamante ni amul du wax waxi caaxaan loolu nag moo nekk si mbay muy suma rak mu xam tamit li may liggéey xam ma xam nga tey bu ma demee ba ànd ak moom rek moom man xam naa lu tax may ànd ak moom mu nekk koo xamante ni tamit promoteur bu bees la xam làmb koo xam ne da daan seetaan depuis bi mu nekkee xale mbappat def lépp ba ñëw débuté si mbappat di tëgg tëgg na fu ne kenn du ko wax ni ko gan la si làmb xam na bu baax li mu war a def te xam na fi mu jëm te xam na ni làmb dafa am coow kon kenn du ko si wax dara man daal jikkoom mooy nit koo xamante nitu kàddu la su la waxee ni la trois heures trois heures pire di nga ko fekk fi mu la fekk am loolu rafet na loolu soxla nañ ko. lii nii maanaam dal na xel te rafet na macha allah. ndax xale yi dañuy nekk ay xale yu mën a mobiliser. Ronald ñoo xëy na ni mu demee la rek mais yoonu làmbam bu tegoon ci yoon heure bi fekk na nii bëri arène nationale bi sax yu mag yi ndax macha allah premier bi moo koy tëggal si combat booy naar la woon ak euh, Eltona. Ah? wala euh, ak Pagala ah? Ah, premier combat 300 billets la ñoo jaay. indi mbooloo bu bëree bëree bëree bëri wax dëgg neex yàlla. booy dugg ba xaadim ki mu doon àndal dafa mujj ñëw di ma kii pour ma dimbali ko ci bunt stade bi xool ni ñu dugal yeneen booy ñu ñëw ak ful bu doy waar mu nekk lu ndaw a ndaw deux Ziga mi chaque jour dama koy wax gars yi mbër bu bari supporter la wala lazim dafa bari mbooloo macha allah Crémensour Kaagour de aussi noonu ay mbër yu am mbooloo lañu wax dëgg yàlla ñeent ñi daje fii li ci moom loo ci defar rek bu soobee yàlla journée boobu dina dem incha allah. bi mhm. gën naa leen. Clémenceau mii xam ngeen ko moom sax xaw ma lii mu def sol nu mu tudd pël du mooy kii palmaan waa palmaan de la yor lekk na fi léegi li nga xam ne moom mooy pomam génnewaat orange téye ci loxoom xawma nag waaye daal loo ci mën a dégg moom defe naa it parcelle la dëkk nekk ca Birahim Ndiaye wala du noonu ah Grand Yoff Grand Médine wa benn la entre parcelle Grand Yoff ak Grand Médine moom ñu bokki teen la rek ñooy laxasoo ay goj maa ngi lay bëgg Clémenceau maa ngi lay delloo siyaar ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonante bi di sant sama ñaari waajur di nuyu ñu nekk saal bi ñëpp ku nekk turam ak santam di nuyu sama adversaire di nuy Deuxiga di nuyu Kagourin di nuyu Mbaye Yékini mi fi toog nii mi tëggal laabule euh, man li ma lay laaj mooy actuellement yaa ngi ci ñaata combat man maa ngi ci neuf combat ñaata victoire sept victoire deux défaites kañ nga mujj daanu kañ laa mujjee daanu 2000 2016 su ma jumul laa mujjee daan waaw. koo mujjee daan yow. man guy gi laa mujjee daan. ban guy ban bu nekk écurie Mor Fadam. daa bëri guy de écurie ah, moo bari ay turu mbër si boppam. 95 la wala numéro 1 ba ban guy gi. ah guy gi daal man daal waaw ah, daan naa fa guy gi moom. am na su guy gi bu. écurie bu laal nga laan nga daan guy géem. mais yow loolu nga def ko di xale yàgg ban na nga dugg si lam lamb deux mille deux mille deux mille seize deux mille quinze laa si dugg waaw. ki ngay bëreel nii xam nga ko Ronaldinho. waaw Ronaldinho xam naa ko xamul lamb nii rek. xamul lamb ça veut dire que xamul lamb mooy xam nga ko ci mën a bëri xam nga ko ci dëgër fit wala da nga koo xam ci ñàkk a mën a bëre. ndaanaan la ndaanaan ku li fadarit la nit moom lu mu munti doon da nga ko koy waxal ndaanaan la xame naa ko si bëre xame naa ko si jom xam naa ko si taaral bis mm. waaw. yéen ñaar bu ma la laajoon tey yaa ngi koy gis muy bëre yaa ngi bëre ku dàq bëre loo may wax. ah ki dàq bëre moom incha allah le jour ji dinañ ko xam. actuellement ni mënoo ko wax yow. Hmm, man de amuma lu ma koy wax moom le jour dinañ xam ko dàq. est-ce que defoo ay risque parce que Ronaldinho xam nañ ko ci mën a bëre macha nekkoon di toj dem ba benn moment mu xaw a mel ni lu xaw a wàcc tuuti yow ñu gis la nga mel ni kuy yëg nga xëy ñëw jël ko est-ce que loolu du risque ci Clémenceau. waa risque la du risque ndax kon champion moo tax ñu jël ko donte gars yi dañ ne mbër su nekkee si tolof tolof la bu ko jël mais champion la daal daf na fi lu nekk si làmb kon ñu jël ko risque la du risque amaana am na ñu ñu làmb boole woon waaye kon donte moom dafa bëgg combat bi combat bi jaral ko lu ne da ñëw rek ñu bëre. moom moo ko doon wër. ah làmb la daal ñun daal bi ñu promoteur bi wooye wax ñu jox nañ ko suñu kàddu jox nañ ko suñu accord. delloo kontaan kooku Ronaldinho ca la muy liggéey moom jarta laajte ndax mën na ko wala mënu ko ndax yaakaar naa ku xam Paris Saint-Germain ba ca Barcelone Ronaldinho def na wane na fa boppam coupe du monde 2002 yaakaar naa dee su ko fàtte final ba Brésil ak Allemagne bal ba neer ba Olivier Kahn doon jàpp mu koy të maa lay bëggee mbër waaw ah, maa ngi lay fay xanaa bañ sant yàlla judi Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur ñu képp tee ko nag ñaanal sama ñaari waajur fañ tëdd yàlla na leen gënal fañ jóge mais baat baa ngi kal lu xew comme maa mel wala da ngaa tiit wala man nii laa mel na Touré non nii la bokk Ronaldinho ma bokk Ronaldinho laaj naa la ko yof sénégalais yëpp dañu da ngeen a niroo laaj naa la ko yof man kay yow mi ko dubbee sa bopp laa koy laaj oh, yow laa ko laaj mi mu posé question bi laajaan naa la ko ah. lan moo tax nga laaj ma lool sénégalais yee koy wax di ma yeggaleel leen ko lan moo tax yow nga laaj ma ko gaa yi dañ ne da nga niroog moom. moo tax mais dama niroog moom. man de loolu laa gis. <laughs> ci ban visage nga gis. kanam gi gis nañ ko ci macha allah bëre itam moom gay gaa yi dañ ne da mën a bëre lool. Ah, macha allah. macha allah xale bi nga jël xale bu ne ci yoon di dem nga ñëw jël ko te dañ ne yow suma jumul yaa ngi teglante ay quelques defet cinq défaites ah pël teglante wa cinq waaw boo ne xale bi ma jël dafay nuru ne maa ko mag magoo kële non wax dëgg yàlla man ay moroom lañ mais ci làmb magoo ko ci non làmb man 2013 laa débuté mu Elton Pakala waaw ba tey mën naa ko mag ci làmb Elton Pakala mooy son premier combat 2013 laa wéru mais tamit bi ma ñëwee dama teg la 11 combats 7 victoires waaw presque toog naa cinq ans yoo xam te daanu xaw ma presque mais tamit làmb ak li ñu ànd mais moom ndaanaan la macha allah macha allah. macha allah. yéen ñaar ko gën a nekk ndaanaan. <laughs> non non nañ rek boobu boobu. door a wax ci loolu noonu. nee nga ndaanaan nga kon da ngaa mu gën laa nekk ndaanaan. waaw moom xëy na mën na ma gën a doon daanaan mais tamit dinaa ko wax ñaar na wuti doole na na wuti ku mën a bëre contact ak moom. wuti doole ku mën a bëre. na wuti doole. te wuti ku mën a bëre contact ak moom. su ko deful. ah lu yàlla xam doy na. maanaam dama su ma la déggee kon da ngaa bëgg wax li ko ciy fekk du neex. xam nga wax naa la ko sànq si biir wax nee naa la macha allah moom daanaan. waaw yow li nga wax dégg na mais da nga ne na wuti mën a ku mën a.

wax ñu ko. non dama koy wax est-ce xam na ñi ma bëre. doo ci lim tuuti. non moom laa koy laaj ba pare est-ce xam na ñi ma. yow fi mu ne nii moom ñun dañuy laaj nag Ronaldinho mënoon noo ko. yaa nuy wax. <laughs> moo tax ma laaj ko ndax est-ce xam na ñi ma bëre. waaw doo ñu ci limbal ñett wala ñaar sax. laa koy wax. na lañ koy waxee petit ñaar. ku daan. daan. ñett ñi nga xam ne ñoo ma mujjee daan laa koy limal rek. petit ñaar anti. bee bis. ah ndaanaan lañ wala duñu ay ndaan ñoo ñoo ay ndaan kullu fadrin dinaa limal benn ndaanaan boo xam te ñun ñëpp moo ñu boole yilif muy Ndiassé 2 ndaanaan la wala du ndaanaan Ndiassé 2 bu géejawaay bu géejawaay te moo ñu boole yilif am déet waaw pël ne par rapport fi nga jógee ay jafe-jafe lu tax pël ne na nga bëgg a jël Clémenceau waaw moo tax ma ne mu ñëwaatee damay xool xale bu am tur mu jël ko ma tàmbalee ci moom. waaw loolu wóor na. incha allah dama xob wala ko dugal ca pax ma mbaa dina ko génne. Eh, ah ba tey loolu mën na nekk. Hmm. ba tey mën na nekk. loolu moom mën na nekk. <laughs> auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yàlla julli ci yonante bi di sant suñuy ñaani waajur di sant suñu sëriñ sëñ Habib si ma Abdou Aziz si baax ñu koy ñaana bu baax mu yàgg fi di siyaar ñëpp ñu fi nekk Babacar maa ngi lay siyaar bu baax a baax. kaw maa ngi lay delloo siyaar Kaaw Gourdin buñ ko waxee ban écurie la Kaaw Gourdin nekk. Kaaw maa ngi école de lutte Dalifort. Dalifort. Ah. Mhm. ñaata combat la bëri ci euh, carrière am actuellement ak kañ la dugg arène. maa ngi dugg arène def naa dix combats deux défaites huit victoire waaw. macha allah loolu baax na tey ñu ñëw jox la grand combat bi mooy sa premier grand combat wala. diisul. non du diis. ak deux Ziga ma li nga jàkkaarloo du diis. non non dara du diis ci man. ah yoru lu diis ci yow. déedéet. ndax yoru ko. Gourdin ngay waxal. Gourdin defe naa kuur gu gàtt gu am doole la kuñ ko dóor di nga yëg ko. waaw ah, te fu mu toll nii dafa rax lu bari. lu ci loo ci dolli. jours yi lay leer. incha allah. na waar de ay na de. waaw sant yàlla rek yal nañu yàlla may fekke yow Gourdin na nga ko fas yéenee dóor yaw ak noo ko koy dóoree. Ah, ay moromam jël nañ ci kay moom foog mu jël ci. moom su mu jël ci Gourdin gi. kàttanu yàlla. noo ko koy dóoree. nu mu ko bëggee. ni mu ko bëggee wala yow ni nga ko bëggee. moom nu mu ko bëggee da koy daan. kon da nga yaakaar da lay jox boppam ne la dóor ma gurdeen. loolu force la mënu ci dara. yow mi li ngay foo ko teg da nga ko ëpp doole koo dàq bëri da ko ëpp fit. waa Dalifor ñoo mu yónni yàqante ma. ndax da nga ko ëpp doole wala da nga koo dàq bëri wala da nga koo ëpp fit ba ne moom mooy choisir fi nga koy dóor gurdeen bi. Babacar. jour yi mu taxaw mu dal ko. mu daw mu dal ko. fu mu ne nga fekk ko fa. kàttu na yàlla. côté mbooloo yéen ñaar kan moo ci ëppale parce que tam promoteur bu promoteur moo leen tëgg da ko war a mobiliser te yéen ñaar bëri tête bi kan nga yaakaar mooy ëppale moroom ay supporter waaw sant yàlla ci mbay Yékini bu mu ñëwee ñëw rek fisile li nga xamante ne mooy grand combat bi ñoo ngi ko ci ñaanal bu baax réussite ci kàttanu yàlla Dalifor laa lay wax waaw ak li ko wër dafa bari deux bu yéexee du dara ci kàttanu yàlla. ay sigaam daal da nga ko fas yéenee buree buraaye coupé ko. waaw gourdin moom fu mu dal xam nga ni dara du des. Hmm? dara jax da lay def. te nee naa daam lu mu rax. te jours yi dinaa la wax lu mu rax. maanaam li mu rax daa mi pont wala ay wala danga nga diw kaane ay poobar ak yooyu. moo tax ma ne la jours yi ni nga ma di tiimaat nii ak micro yi ci kàttanu yàlla. gourdin moom yàlla bu ma dal ma. dina la dal. Ah, man kay doo ma ko dóor. waaw dina la dal Babacar. kay wax a ko waxal ak si siga mële. deux fu mu nii dañ koy ñaanal yàlla rek. yàlla may ñu fekkee ak tal ba jour J incha allah. waaw ñoo la gën a bég Babacar. ne na mbaa xam nga ne siga meen daanaan. macha allah dëgg yàlla daanaan la. seetaan naa ay dernier combat looloo tax mu bëgg a bëreeg moom. Ah, njool la te du njool muy caaxaan. Babacar. Ah. man du ma de yàlla daa def loolu. yow ci koo jógee sax. Sidi Diamaguène moom mu mujjee daan. ah Sidi la mujjee daan. ak këll gi. muy ñaar defet nga teglante ko. Ah, yow sa mbir sa mbir moom dana naqaree lijjanti de. moo tax ma ne la Dalifor dañ maa yónni yàqamti ma te dama nekk ak ay xale. kon fi mu ne loolu la dal nii sa waay nga ko fas yéene yebbi. ci kàttanu yàlla. Hmm. ak sëñ Babacar si dinaa ko yem. <laughs> gaa yi defe naa xam ngeen building la grand champion ñu koy nuyu di ko ziar kii rakkam la deux Ziga ñu ngi lay nuyu di la ziar. di la delloowaat nuyoo bi ba ba Babacar di wax salaamaaleykum ginnaaw bu ñu sante yàlla jël ci Mouhamed sant si ni ñaari waajur di gërëm ñu fi teew ñëpp ñun nag combat bi dañuy woote ndax si woote lañ toll waaw. yow kii yor gourné mi fas la ko yéene fëgg ngay wax waxi woote te yeggaguñ ci woote. si woote lañ toll dañoo bëgg a wane suñu bopp. ah fi mu ne ay wax lañ toll moom ndax dégg nga lim la wax làqu la ko gourné la yor te ku ne xam ne gourné fa mu dal ne wax waxkat nekkul ay wax ñoo koy noppiloo. luy noppiloo waxkat. ay duma ak daan moo koy noppiloo. kon moom mi waxkat la. si waxkat yi la bokk moo tax ma ne la waxkat nekkul ay wax ñoo koy noppiloo gourné daa mos dugg si làmb ji ay loxo ñooy dugg si làmb ji. Ah, gourné CNG da ko interdit su ma la déggee. fépp a ko na yem ci benn sport. na yem seen kër. gourné gi. waaw na yemal na ko yemale seen kër. Hmm. loolu mais yow xam nga kaa gourné mi. xam ko moo dax ma jël ko. kon daa nooy pour yow su ma la déggee. non nooyewul sax lu mu gën a moom wax na ko nee am na lépp. waaw kon am na lépp rek neex na. nee na gi dafa dafa dafa ànd ak i lu waaw yow lu rax baaxul. na gën a raxal yeneen bu ñëwee day gën a wàcc. yow daal naturel pour yow moo baax. non kii dama koy defaral lépp lu mu bëgg rek man maa koy defaral man maa koy imposer su xeexee day ñàkk bu bëree day daanu. yow ñaata combat am. maa ngi sama huit combat. ñaata victoire. six victoire deux défaites. Ah, de moom mu ngi ca dix yaa ngi ci huit yow ban écrit nga ne. sax xam-xam Birame Ndiaye. ca père Birame ñu koy nuyu di ko jaar sunu père. waaw di ko nuyuwaat di ko woowaat si combat di woowaat bi building di woowaat parcelle un ba vingt six dina wax combat seen combat ak li ko wër Grand Yoff asadam Grand Médine Grand Médine. Soprim 1 Soprim 2 station fépp Patte domaine ñëpp maa ngi leen woo ci combat bi. mais mbër mu jóge ci ñaari defet dégg nga li mu wax ñaari defet la jóge yow nga jël ko est-ce que yow tam nekku ci ay risques yow loolu wër na yow deux Siga. bii day gën a gën a. day gën day gën a gën a. gën a gën a dégguma ko. daa daanu ñaari yoon. dama koy def rang mii gën a gën a gaaw. muy gën a gën a gën a. gaaw. kon ko bëgg suuxal xanaa. day surux. loolu doy est-ce que dina ko nangu. ñun ay ndaw lañ dañoo nekk biir parcelle waa parcelle yaakaar ñu ñuy liggéey si làmb am na loo xam ne daf ñu war lu ñu war nag mooy suñ ñëwee si jour si dinañ ko def bu neexee suñu borom. kon kii su ma la déggee du moom mooy ki lay téye. non moom waruma mën a téye moom xalaatu loolu sax. Ah, loolu la xalaat de ndax dégg ngay waxam. xalaatu ko day naxtaan boppam nii rek. day defal boppam daal maanaam. defal boppam man maay def lépp maay bëre maay daan. yéen ku dàq bëre. maa ko dàq dàq xeex. maa ko dàq xeex. ko doole. maa ko ëpp doole. kan mooy daan. man maay daan ndax maa si fuuf. ku raaj jëmale sa kanam mu dël. laaj ko moom. waaw ndaanaan la de. ndaanaan ndaanaan la koy daan ay ndaanaan lañ bëgg a nekk kon moom ndaanaan la. yow koo mujj a daan. booy pir ak xeeru ngor laa mujjee daan. xeeru ngor ma yoof ma ngor. waaw ñoom ñaar laa mujj. dama koy dollil meren mer. Hmm. waaw. waaw moom ñu mu bëreel dégg ma ne la waxkat nekkul ay wax ñoo koy daan ñoo koy noppiloo dañ koy duma daan ko ñu mu bareel ñu mu mujjee daan ñu ko mujjee daan dumuwuñ ko dañ ko daan rek man dama koy duma dama koy daan. loolu laa koy def. Hmm. bu baax. ndaama ak njool moom ndax seenu jàmmaarloo dina neex. yàlla baax na. Hmm. yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm. non man maa sut maa dàq bëri maa mun maa daax lépp. côté côté mbooloo mi ne na moom boo yéexee doo am foo toog sa waa kër. loolu dañ ciy woowaat waa parcel loolu am na ñu ko war a tontu bu ñooñ ñëwee ñoom moom ay mboqam ñëw dinañ xam ne maa moom duñ benn bokkuñu nit ñi indee si làmb. promoteur bi loo koy wax Mbaye Yékini. Mbaye Yékini dañ koy nuyu rek di ko wax lii nii yombul da ko gars yi ñëw jàppale surtout waa parcelle ñëpp nañ génn ñëw mobiliser si kombaa bi jàppale ko ngir jëmm ji. daf si sonn si yu bari xam nga ñun yoo fa gaa yëpp nañ ñëw jàpp ndax xam nga ñun lu ñu manqué woon ñu ngi koy commencé am kon nañ ciy profité jàppale ko mu dem sponsor yi nañ ñëw dimbali ko waaw ndax xam nga promoteur bi dimbali gone yi la kon war nañ ko mën a jàppale. le nouveau promoteur Mbaye Yékini ah di jeune moom tamit ñu ñaan yàlla rek comme ni mu dugg see nii yàlla na yàlla def rek comme li ma wax rek mu gis lu kawe njortam loolu la ñuy ñaanal promoteur yëpp. waaw te waaw comme waa yar moom grand Modou Bey kuñ ne am nga ko muy dëgg ci yow jàppal ne am nga gàllaaj waaye booy buñ ne da ngaa reew itam muy dëgg moom jàppal ne moom kenn du la mën a lijjanti moom yàlla nañu yàlla musal kon ci reewande te defal ñu bi yar barke yonente bi sallallahu alayhi te muy dëgg mbay ñu ngi lay nuyu di la ziar mbay Yékini maa ngi lay ñu delloo nuyu bu baax a baax a baax aouzu billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim maa ngi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bu baax junni si Muhammad sang-sang sallallahu taala wa sallam di sant Serigne Touba bu baax di sant maam Cheikh Rafal Lamp Babul Mouridina di sant njaboot sëriñ Touba ak njaboot Cheikh di sant sama Serigne sama yaakaaru tey àdduna ak àllaaxira sëñ Fallou Mbacké mbay Mbaye ni ci lu gàtt rek lan moo indi Mbaye Yékini ji. Ah, moom lu ko indi mooy que ku nga xamante ni Sénégal ba mu daj. loolu moom na ko ñëpp seede benn mbër laa am muy Yaxya Jóob ni moom laa am te Sénégal war nañu bàyyi faral mbër bu daanoo ñu xas ko ñu sànni ko xeer di wax yi kenn xamul man ni bu doon daanoo mille fois moom laa xam moom laa bëgg moom laa dugal sama xol wax dëgg fa yàlla lépp lu may créer ak lépp lu may wutlu lu ne sama siiñ a ngi nii mbay ne si mës nekk si kàttanu yàlla suñu borom incha loolu am na solo yax ya ñu koy nuyu di ko ziar boobu tamit le grand champion ah. tey nag nga jóge maanaam mën nañ ne ki daan ànd ak yi wala ki daan supporter yi ki ni di ko jàppale ci bisam tey moo xëy nekk promoteur lu la poussé nga nekk promoteur bon yàgg naa ànd ak ay mbër dem géej di entraîné ak ñoom foowu góor la te ku ne gis na entraînement dafa metti boo entraîné wu wàcciloo si géej gi rek doo ko mën a xam bon wax dëgg yàlla yëg-yëg boobu nag comme que maa ngi ci woon man maa ngi ko yëg sama yaram ni ñoom bon ma ni nag yàlla def yàlla baax na bis dina ñëw dinaa doon promoteur kooku Bécaye mbay rek laa ko musoon wax ndax moom musoon jël wane man ni ma da ngay ñëroog Yaxya man ko loolu am na après par la suite ba yàlla suñ borom dëggal ko mu am ma ni naa bàyyi ba Yaxya génn làmb bi ma door a ñëw dugg pour du ay tur moo may ñëw duggaloo si ya wala soxla dara soxlawuma dara dara dara dara dara leneen lu dul toog ak ya waxtaan ak moom rek rek doy na ma mais soxlawu ma leneen waaw. tey nag nga ñëw si làmb nekk promoteur bu bees mën nañ ne tëgg ay xale yoo xam ne ni gis nga léegi liñ présenté fii diggante Clémenceau ak Ronaldinho deux Ziga Kaw Gourdin kan moo la inspiré ba nga taxawal combat yi ak loo yaakaar ci xale yi ba taxawal seen combat. bon ginnaaw loolu damay gërëm bu baax a baax Père Modou Bey waaw dama koy gërëm bu baax di ko ñaanal. yal na ko yàlla taxaw yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla wéral yal na ko yàlla dëgëral si darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm tamit aas waaw teew fii mais Matar la fi yabal mu teew parce que maa ngi koy jaale dafa am dese maa ngi koy jaale bu baax a baax yan yàlla def jàmm ak salaam mu teew ak jàmm ak salaam si darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mooy maanaam tey xale yi nga taxawal nii ku la inspiré ak pan yaakaar nga am ci ñoom ba tëgg seen ay combat ñoom xale yi fi toog nii. waa ñii dama leen war a tëgg force kooku force la parce que parcelle laa dëkk waaw mënuma dëkk parcelle di yeewoo parcelle di liggéeyee parcelle ba pare mu ñëw bëgg dem feneen naan maa ngi leen ñu tëgg ci kon bu boobaa loolu day ñaaw te nit ku ne war nga xam ni fa nga fa ngay liggéey ak looy def lu ne war ngaa tàmmale fa ngay yeewoo. kon loo tax ma tàmmalee fii ma tàmmalee parcelle jël fii lu tolloog cinq mbër waa cinq mbër laa jël parcelle te bu doon sama sago sax bu doonoon euh, du dix làmb vingt lay doon sax moo ma doon gën a wax dëgg yàlla waa. léegi combat bi mën nañoo xam kañ nga ko bëgg a tëgg ci ban mois ak ci ban stade nga ko bëgg a tëgg parce que arène nationale lañ fi xam ñuy bëre ak Iba Mar actuellement. bu soobee suñu borom amaguma date amaguma mois mais nag damay wax lu leer nañ. Euh, laataa may jël mbër yi ku si nekk ak sa ménagère wax naa ak ñoom lenn ma warloo ak ñoom ba duñu réeroo duñu juum te ñoo ngi ñuy toog te bu doon sama sago Matar Ndiaye mi mooy aas aas mooy Matar Ndiaye cachet moom benn mbër ñi ngi nii kenn du ko fi jooy waaw li nga xam mën na la téye ba incha allahu rabbi lépp yomb ah, ba lépp li nga xamante ni duggal nga ak mbay yëkk ni sa xel dina dal mais le problème mooy date foog nga dem CNG mu ubbi nga jind sa licence promoteur yi nga xam ñoo mu fi jotoon jiitu ñoom ñu jox leen bis après ñun ñu door a am bis. waaw mais xam nga li tax nag man ma gën a nangoo taxaw fay mbëri loo xamante ni dina leen arranger pour lu demee noonu la. si kàttanu yàlla suñu borom mais nag maa ngi leen ñu gërëm maa ngi gërëm de Giga Kaaw Bourdain maa ngi lay gërëm c'est la première fois ñu gisee. Euh, du ñëw tamit même chose waaye Télémazo ñoo dëkk waaw unité 16 te dama koy noddaat encore ci kaw waaw ñoo dëkk unité 16 parcelle laataa may jël mbër bi wax naa ko ménagère am wax naa ko mbër bi parce que làmb ñoom lu ñuy dundee moo garaaw waaw waaw promoteur bi euh, lan la mbër bi di dund promoteur bi dund ko le promoteur bi di dund mbër bi tamit dund ko wax dëgg yàlla waaw wàccoo ci géew bi sax géew bi moom ku indi sa doole yaa fay wàcc waaw c'est ça aw ma lu dul am yéene bëreel ma yow it nga am yéene nangul ma nga bëreel ma loolu rek moo. léegi fi ñuy jeexale mbay est-ce que xalaat na tamit tëgg yeneen ko combat ëpp doole yi. Euh, bon loo gis wàññi si benn lay commencer fii yàlla rek moo fi nekk man moom yàlla rek wax dëgg yàlla moom laa jiital. te ñaan naa yàlla suñ borom mu suturaal ma ba lépp lu may yóotu ak lépp lu ma bëgg yàlla suñ borom wuy si ma si may ma si ndam si kàttanu yàlla suñ borom si darajay Muhammad sallallahu alayhi wa kontaan naa ci yow mbay maa la gën a kontaan nga may ma gërëm bu baax waa Brioche Dorée bi maa ngi leen ñu gërëm bu baax a baax aw ma seen fay kii ñu naan euh, Moustapha maa ngi koy gërëm bu baax a baax te tamit may yokk wax ni mu suma gis Brioche doore mu ñëw sponsoriser làmb sponsoriser làmb waaw musuma ko gis mais ñoom war nañu mën a ñëw parce que lu tax mbër yi wuur na yàlla ak yonent seen xaalis lañuy ñëw yëkkati di ñëw fii di reer si lii nii tey li tax ma am ko c'est parce que man ak sama soxna ak sama njaboot fii lay ñëw waaw wax dëgg yàlla fii lay ñëw toog fii lañuy ñëw ba heure bu ñu neex une heure minuit door a jël suñu oto ñu ñibbi waaw mu doon nag sama sago bon ñoom tamit ñu bay seen waar ñëw fekk si làmb yi parce que booy yëpp dañuy yëkkati seen xaalis ñëw Brioche Dorée yëpp bu nekk fii senegal jëf fa seen xaalis jënd fa seen reer dem reer bu suur dem tëdd nalaw wax dëgg yàlla waa maa ngi leen gërëm bu baax kon waa Brioche Dorée jaaraama xam ngeen tey ñu ngi woon fi nga xam ne mooy Brioche Dorée bu jàmmalaay ak kan Mbaye Yékini di le nouveau promoteur tëggay espoir làmb yaa ngi dégg yaakaar naa ne buñ ne la bi Kaw Gourdin ak deux cigares di grand combat bi yaakaar naa loolu ci ñi xam làmb xam nañ ne lu jaadul mm-hmm. parce que itam làmb ju war a neex la kon ñu koy ñaanal yàlla ci ni mu dugg see ji bismillah rahmaan rahim yàlla na fi fekk lu kawe njortam ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaanal promoteurs yi que lu may wax rek suñu promoteurs yi làmb du am parce que ñoom ñooy bayeeru làmb ji kon encore une fois yàlla na ñu am lu ñu tëggee mbër yi ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko ci àddina bi yëpp bëgg nañ ñëpp jaar nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm